maa fi ñu ngi woy waa Sakho famille bu Golf Sud ah dara def liñ daan def rek deux heures ay gaaw rek mu toog di xoole yii yàgg na ñun dañu ànd ak Balla Gaye di tiit wala ñuy ragal ñun am nañu yaakaar bu yàgg ñun làmb ji jeex na ba pare de dem rek moo ci des dem dóor mu daanu jeex na tàq loolu doo nga ñu dese tey tey léppay dëgër kaari fekk géejaay ko bëgg dem tey dañ topp géejawaay léppay dëgër non ñun duñ def violence ñun non à la violence la ñuy def ñun waa géejaay non à violence la ñuy def Balla Gaye dong Balla Gaye képp Balla Gaye bëggul coow bëggul histoire duñu tu ay kon ñun ay supporter bi duñ def yëf seytaane non à la violence rek ñuy def dem bëre daal ñibbisi